léegi nag américain bi wax na nee na jàmm la bëgg diggante opposition ak gouvernement opposition ñëw nañu nee nañ duñ bàyyi Macky Sall di leen noot Macky Sall nag moom mu ngi ñëw tontu leen ndax moom da leen noot war a nootu leen ñu seeti Macky ca pale ba ak soxnaam ayca militant yaa ngi ci biti duñu xaar militant yaa ngi ci biti nañ leen yeew wax leen leen war a xew dama ne dama ne wax bi du gudd te du gàtt waaye dina nekk ci diggante gudd gàtt mooy digg doomu damay wax kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak cosaan yi ak observateur yi nañu seetaan te ñu àtt dëgg xool leen ñi nga xam ne dañu bëgg indi fitna ci réew mi parce que dëkk boo xam ne gudd ak bëccëg ñu ne dañuy marché loolu rafetul man ñëw ma fi pour jéem a indi ay problème ci senegal instant bi nga xam ne ñu ngi taxaw di wax mais man taluma leen moo tax ma délégué ki nga xam ne mooy docteur Cheikh Kanté ministre de l' émergence na ko demal ma ci kër kilifa diine yi nga fexe ba ñoom ñëpp ñu xam ne ñun tànk jàmm moom mais Sénégal mu ngi émergé bu fekkee ne ñoom dañoo rus wala dañoo soxor conjuguer le verbe émerger te son verbe du premier groupe qui se termine par ER. mais kooku ñoom bu ñu ko rusee wax wala mënuñu ko conjuguer les Sénégalais sont en train de conjuguer. man rafetlu ma yoon ambassade États-Unis du ñoom ñoo ñu colonisé. mais démocratie foo dem ci àdduna fekk ko fa mais lu ñu demee ba États-Unis lan dañuy wili pande dinañuy boole affaire boole yi man la koo xam ne xale boo xam na dañ ko dóor ci mbedd muy boole papa ay damay dem boole la yow ñoo ngeen ñoo war a wax ak man ma woo ci jolof ngeen lank naan da ngeen dem di boole. loolu mais loolu quoi qu'on loolu affaire tapet la affaire bu xut la dama bëgg ñu xam ne maram mii yoonam nekkul ci état maram loi bi moo ne képp koo xam ne da nga am soxna nekk monsieur le président de la république première dame loi bi may ko mu ut organisation sociale di jàppale borom këram ci li nga xam ne mooy social madame Colette Senghor moo ko fi njëkk a dem madame Colette Senghor moo ko njëkk a def mooy soxna Léopold Sédar Senghor madame Elisabeth Diouf ñëw def solidarité partage tata Viviane Wade ñëw créé moom tamit lu mel noonu moom tamit mu ñëw def loolu mais jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition seen borom kër yi lu ñu jot ak maram lan la ñu jot ak maram te nan may xamal tata Viviane Wade dégg naa waxam yaayu maram fay yorom nekkul ci li nga xam ne mooy sama diggante ak état goro la te place su goro la yem soo amee lu muy wax na ñëw wax ak man war mu wax ak marab marab man dama xam marab nitu jàmm la nitu koo xam ne bëggul problème waaye nag ñu ngi koy attaqué parce que maa ngi dégg seen soxna yi naan dañu dem pale defante ko ak marab mais marab amul jot lu nekk pale di defante ak ñoom damay bañ a wax na loo xam ne sénégalais xamuñu ko ci moom mais nag bu ñu continuer di ko menacer nii moom dina génn jikkoom ah te jikkoom nag ko génnee bu ñu ko jàppee jikko boo xam ne jikko état la maram ma bàyyi la nga wax kaddu te nga jéem a xam naa la yow tamit sa yaram day tàng na nga dema wax ak ñoom nag góor nañ waxante góor ñi jigéen ñi nañ waxante jigéen ñi ci jàmm jàmm président sama yoon dafa nekkul ci politique ba jigéen ñi foo leen fekk ñu may tëkku di may nel ay problème ah fu ma jaar fu nekk chaque jour chaque jour am marem indi marem man lan laa def. dàq leen sañ. lan laa leen def. man lan naqari mooy yor da nga sañ say. jeex na loolu mooy dëbb na ah. seen boole xoolal fi nga génn tey. tey nii laa def ko waaw dama. def tey. non soxla nga leen koy won sax yow. ni nga ah. mel ni nga la lan mooy seen problème. li ñaan ak soxor. man dafa ma leen dara. waaw léegi nag lopp tuuru. waaw man. gis nga dégg ngeen ko lopp tuuru. tey jii première dame. ah dinañ xam moom mooy kan. laay laay li ëpp naa def tey moom da nga may xoolal da nga may jéggal. non maram ah, dama la ko ñaan moom. ma wan leen première dame mooy kan bu leen topp kii ke kii ke première dame. ma ma leen ñeent ñeent. laay laay li laay. dama la ko ñaan bu leen topp bu leen topp. li ma leen ëpp naa def ndaxte man. seet nañ ma côté bu nekk. bul topp sa jikko. seet nañ ma côté bu nekk il faut ma woon leen man maay kan. bilaay bu la ko ñaan ngir yàlla yonante bi maram sa borom kër moo la ñaan bàyyi ñii bu leen topp. bilaay bal bu seet xam naa ne day karaté. bal bu seet bañ dama leen bañ a wax na day karaté. su ku jaari mari jaari su ku jaari mari jaari. ma ma ma ne appartement su ku jaari mari jaari. su ku jaari mari jaari avant yow. maram maram maram. maram si ko maram maram déet. madame Sow Sow jaari moo war a jaari. madame Dieng blocage. laay la ah. laay laay jaari moo war a jaari nan ko rek. madame Dieng ah. ah bon. su ku jaari moo war a jaari madame. mbete jat li mbete jat li. bilaay mbete jat li xam nga ne kon man dafa man neex. bilaay mbete jat li barke yonent bi mbete jat li. xam nga ne kon man dafa man neex rek mu garde corps. waaye kii mooy garde sama cœur garde sama corps. laay laay li la su ku jaari moo war a jaari moo war a jaari su ku jaari. mbete jat li. ndeysaan sama xarit bi ci Vanda maram attaque attaque attaque attaque su ku jéeri maara jéeri maram attaque. laay laay lii la su ku jéeri maara jéeri maram attaque attaque attaque su ku jéeri maara jéeri maram attaque. laay laay sama xel dama ci on bag on bag nga place am. su ku jéeri maram jéeri maram. on bag nga place am. attaque eh. attaque maram. maram attaque eh, waay maram. ah maram yaa ngi ko rëy maram diit maram diit. su ku eh, jéeri maram jéeri maram ah ah. laay laay lii la maram maram maram maram maram maram. maram maram maram maram. laa ilaaha illa